asalaamaaleykum suñu mbokk internet yi di leen nuyuwaat bu baax di leen ziar di leen bëggee yu ñuy suivre sur wasaare TV wasaare lamb tey nag ah, ñu toogalaat ki nga xamante ni suñu papa la nekk suñu lépp nekkoon ci li nga xamante ne moom mooy làmb jiite écurie ànd ak ay xaleem tey nag ah, ñu fekk si ko fii si Medina fas yéene waxtaan ak moom ci li nga xamante ne moom mooy lamb beneen bi mooy lépp xam nañ actualité yi mooy li nga xamante ni moom mooy arbitre ak li nga xamante ni waa CNG yàgg na cee wax nag moo tax nag tey nag pour waxtaan ak moom day neex te day yomb parce que njëkkoon nañ ko seet si waxtaan ak moom Père Kairé maa ngi euh, maa fi maa ngi lay fay di sant yàlla bu baax di julli si bi am kontaan tey dalal leen fii ci Medina comme ni nga ko waxee sunu benn si kenn si sunu doom war dem ci bés bu mag bu am solo muy bébé Diène ak Fourrière donc ngeen bàyyi seen lépp ñëw fii vraiment def si liggéey bu mu ci ayib donc après événement bi ngeen toog na waxtaan ak moom loolu mbégte la ak kontaante man loo xam ne lépp luy euh, doxal làmb wala muy mu yëkkati làmb rek daf may soxal assotement nag wasaare làmb di site boo xam ne dafa xew si jamono ah di site boo xam ne Fatima moom bu fa nekkee Fatima mu ngi wasaare làmb loolu bës la kon tey maa fii maa ngi lay nuyu baax di la dalal di am kontaane daal tey question yi vraiment di la déglu rek loo ma laaj rek ma tontu la incha allah. pour yéen ñuy suivre sur Wassare Lamb Wassare TV ñu dal ki nga xam te moom mooy Père Kairé wax dëgg yàlla dafa nekk koo xam te ne nee naa ci kàddoom ci waxam gars dañuy bëgg mu wax parce que li muy wax du ko tâtonné li muy wax day nekk loo xamante ni lu mu gëm la loo xamante ni bu ko génnee di nga xam ne kii kat li mu génnee am na fu mu ko teg mais papa moom loo xamante ni instant bi mooy buzz bi quoi yàgg nga cee di ci wax gis nañu CNG ak mbër yi CNG arbitre CNG ak ñeneen ak ñeneen tey nag. li nga xamante ni moom moo posé problème muy CNG ak arbitre ñu gis ne Sitor dañ koo dàq à vie Ngom cinq ans Babacar 5 ans ainsi de suite loolu ban jànkat nga ci am. waa bi si njëkk rek mooy di ko métti lu rek waaw ni ma méttee noonu la méttee kuy sénégalais kuy doomu réew mi au niveau national international lii am nii ñu def ko arbitre yi naqari na ñëpp te ah. tey jii boo jëloon sa micro bi vraiment def micro trottoir dama lay wax ne cent pour cent des sénégalais wala koo munti doon àndu ci parce que àdduna aussi il faut que les gens se te ki nga xam ne pendant plus de vingt trois ans mi ngi colla collaboré ak yow muy les arbres et les CNG ñuy collaboré dem ba kóllëre am seen diggante je crois bien que tey ñoom bu coow jibee ñu def leen nii kenn rafetlu ko mais lépp yëpp dafa am euh, dafa am fii loo xam ne euh, dafa am toujours rek fu mu dafa am toujours benn source fa muy jógee. ñun toll nañ tollootuñ foo xam ne dañuy wax nii rek pour wax wala dañuy wax pour clash kenn wala dañuy wax pour pour loo xam ne ku ko dégg mais dañu ay magum waxoon nañ ko la ñun ay ay ay année ngi ñu ngi al ñu ngi alerter euh, l'opinion nationale et internationale ay année année ni ñu ngi ñu ngi alerter l'état du Sénégal que ne amul benn fen fen si àdduna foo xam ne benn benn discipline la ay nit ngànk ko plus de plus de vingt cinq ans loolu amul fenn am na collectif collectif boo xam ne juddu woon na fi. mais collectif boobu bi ñu bi ñu jógee de ak l' association des lutteurs en activité parce que dañu dem ba xam ne làmb ji euh, mi ngi commencé sooxe gravement te ñun bu ñu jógul wax bu yàqoo boo liggéey ñii ko yor ku si nekk da ngay dem sa liggéey def defi sa liggéey te loolu yàgg nañ ko yàgg nañ ko yàgg nañ def alerte bi yàgg nañ def alerte bi lan la ñu doon taxé des des lutteurs finissants lan la doon taxé ñii la ñuy yàq làmb lan la ñu doon taxé ay woy nàngam sàngam mais tey tey mi ngi nii tey làmb amatul. tey ñu dem ba sax ay audace ñoom di di di jël seen loo xam ne seen njaboot la ñoom seen biir di leen suspendre mais lépp rek man je pointe du doigt à Matar Ba. je pointe du doigt à Ba tey bu taxoon je vais je vais je vais le regarder euh, xool ma koy xool parce que bi fi collectif yi jógee tey jii ñuy réclamer suñu su euh, suñuy doléance dafa def ay assises nationales. no seen association. non dafa def assise nationale muy association bi ak collectif bi. ñu def ay mémorandum mais pour euh, mu dem ba je crois bien que ne mbir mi ëpp ko doole mu def les assises nationales mais gis na mbir boo koy def da nga koy teg si dëgg da nga koy teg si dëgg da koy teg si yoon da nga koy teg li tax boo xam ne boo ko ci tegee mu dem mais tu ne peux pas être un ministre de la République def ay assises nationales après ces assises là làmb ji gën a dee kon y' a problème munoo def ay assises nationales yoo xam ne da nga ko jógee làmb ji fa waroon dox mais parce que na mu wala da ko def ko defoon pour pour nous il a fait ses assises pour écraser certains lutteurs comme man comme Khadim Gadiaga kii mais gis nga dëgg dëgg mooy muje mais assises nationales yooyu boo ko fekkoon da nga naan c'est pas possible ils ont convoqué tous les présidents du CRG euh, du CRG ku ci nekk ñëw ak seen ay délégations les les promoteurs les arbitres ñëpp contre ñun. arbitre si lañ lañ bokkoon ils étaient tous contre euh, contre contre cinq personnes ah. man Moustapha Gueye fa nekkoon Khadim Gadiaga ak euh, Balla Diouf ak Gris Bordeaux mais le monde de la lutte même les arbitres même les euh, le président des amateurs était avec le CNG les promoteurs avec le CNG les managers avec le CNG même gis nga dëgg dafa garaaw xam nga dëgg garaaw loo leen tuuti tuuti tuuti doon leen junni nit mais à l'avenir dëgg tey dëgg moo dëgg moo ñëw tey li njëkk li njëkk a xoolal tey ñi njëkk a démissionné xoolal Gaston dematul CNG Aziz Ndiaye dematu fa Yékini génn na keneen génne na keneen ba si ba si am na si ñoo xam ne ñu ngi seen biir génne nañu ñu bëgguñu nit ñi yëg ko sax ñu ñu génn ñoom ñoo def délégation dem jëli la ñu ñëw parce que dara amatu fa mënatuñu dem mënatuñu dem léegi qu'est-ce qu'on va ku génne si ñoom ñu ne non bul nangam sangam na ministre bi jël ay responsabilités am ces gens là mënatuñu développer làmb. ces gens là comme ñam. mooy mooy la changer rek. Alioune Sarr mënatuñ doxal làmb. mënatuñ doxal làmb amatuñ dañoo sës si mur bi te boo demee ba sës si mur bi da ngay reculer imaginer ku génne di kaas ay droit am mais ku nekk da nga am sa droit boo gisee lu la metti nga wax ko nga ne pourquoi ngeen wax waaw radiation à vie yow dèjà yow ñu war a dax ngay dàqaate moom dañ ko waroon dax kan la ñu war a dàq depuis ñaata at mi ngi si mi ngi si CNG bi. et puis bu ñu waxee ñu naan ministre ñoom non li gën a foot bi gën a état bi di a def mooy ministre bi ñëw di ko kii parce que mu talatul làmb mënatul dem. non Matar Ba si boppam ñëpp xam nañ ne Alioune ñi jaayam la bokk seen Fatick xam nga problème de affaire état du affaire mbokk. nee na ko mbokk nee non loolu du affaire état gis nga état affaire patrimoine national la yéen dem ngeen euh, ba xam ne kii mënatul dem wala moom am grandeur mettre le ministre à l'aise démissionné keneen ñëw tey xoolal championnat d'Afrique lutte gréco-romaine bi Sénégal rang bi mu am mosu ko am presque ndaara lañ jël benn médaille lañ indi. loolu mosul am te xool dafa ñëw pare ñoom ñu koy nëbb bëgguñu bëgguñu euh, euh, dëkk bi kenn yëg ko parce que gis nga yooyu c'est des échecs léegi yow au niveau international mënatoo def résultat au niveau national mënatoo def résultat arbitre yi wax tey jii CNG daal car rapide bu dof la comme ni ko la fa car rapide bu dof lu mu romb mbëkk la mooy CNG rek c'est des car lu romb danañ ko mbëkk bu ci ministre waxul nag si moom lañ jëm parce que man du moom euh, Matar bu mu nangu bu mu nangu sa CNG ko xañ lu bëri que ça va qu'on se dise la vérité. kon ñoo nekk si dëgg. non ñoo nekk si dëgg. kon li ñuy kaas non non gàcce la sax xoolal arbitre li ñu wax ay 10 000 francs loolu kenn mësu ko yëg. kon nga xam ne nga xam ne kon ñi vraiment arbitre yi aussi euh, yàgg nañu muñ lu métti ah. 2 pour 5. waaw non yow mënoo mënoo arbitrer ñu fay Modou Lo wala Balla Gaye 130 millions di la jox 10 000 xel moo nanguwul loolu te 10 000 yi xoolal yow boo ñëw si ngay paas boo ci paasee aller retour jënd si saañ lu lay dese. loolu ñu toog di ko muñ ay at di ko muñ ba tey bi ñu génnee wax loolu kuy mbër kuy amateur kuy nit la da nga xam ne lii kenn mësu ko xam dafa ñaw waaw ñoo ñu kaas nga ne pourquoi ngeen kaas mais nañ leen woo toog ñu waxtaan mais actuellement li am nii daal problème dictature la ñun daal sunu yat la ñu yor ku ci wax loolu waral ñu dóor la waaye nag un jour viendra nañu leen dem rek. ñan ñooy dóore ah ñoom. <laughs> yow bu ma nee ñoom kañ xam nga ne mooy ñu fi nekk rek ñoo fi représenté état bi <laughs> moo tax ñoo ngi lancé un appel au président de la république ah parce que situation bi l'heure est grave parce que tey jii ñi nga xam ne ñu ngi plus de vingt cinq ans parce que africain pourquoi mais quel le problème de l' yow dañ lay dégg nga def ko moomeel. kon 109 bi d'accord nga ci. non mais 109 moo war a am boo amatul 109 làmb dootul dem. si la lutte n'a plus de cent neuf làmb ji dootul dem la lutte a de cent neuf. mais kon yéen nouveauté Sénégal moom ñi fi nekk mën a jiitali euh, réew mi bari na tey jii fédération boo dem euh, ñi fa doon pratiquer ñoo ko nekk boo demee ci football ñi daan football ñoo ko yor ñun rek ñoo ñun rek ñoo nekk ñoo xam ne à 45 ans ñu génne la làmb ji doo arbitré doo bokk ci CNG bi doo bokk ci dara cinq ans ñu ne la bokkatoo demal toog sa kër mais loolu c'est grave. il faut que tey loolu de li indi loolu yëpp mooy dañoo diviser tey ñoom seen système mooy ils sont très malins le CNG. Mhm. dañoo diviser les lutteurs pour pour pour pour pour mieux régner c' est ça qu' ils ont fait. diviser mooy que yow gis nga collectif saa yu jógee am na yeneen mbër yoo xam ne dañuy génn contre mbër yi mais tey li ñu doon xool mi ngi nii tey. tey ñoom ñëpp à l'unanimité xam nañ ne ñun li ñu doon wax dëgg la kenn mënul wax tey wax loo xam ne euh, dina dindi loo xam ne ñun moom lañ daan wax dem. làmb ji bu yàqoo ñun la yàqul qu'on se dise la sunu gagne njaboot la. su ma nee njaboot ñëpp laa wax samay rakk sumay jarbaat sumay doom ak sumay sët tey ji loolu la ñu bëgg mais tey ji amatuñu espoir ñaata mbër ñoo tukki mais des centaines de lutteurs ñoo tukki daw nañu ñu nekk fii moo xam ne mais tey mu am na ñoo xam ne mënuloon demande da nga naan te ñu ngi fii ci réew te bàyyiwuñu bëri mais promoteurs yi fi nekk c'est des ñi nekk léegi mënatuñu leen tëgg am na ay jamono lu ñu doon wax promoteur bu fi euh, joxati ay billets xale danañ nangu sa licence mun naa teg sama loxo ci kaamil ba léegi loolu mi ngi am te ñoom yëg nañ ko mais parce que mënuñu si dara mënatuñu c'est-à-dire mënatuñu situation bi donc loolu boo dee nga xam ne situation mënatoo gérer mais démissionnaire nga bàyyi ñeneen ñëw peut-être am na ñoo xam ne bu ñëwee li di 109 boobu ñuy wax mën nañ jëlaat làmb ji teg ko ci yoon quoi franchement. sànq wax nga ko nee nga làmb promoteur yi ñoom ñoo yoratul yow pour yow làmb lan moo mën a sauver làmb ndax ñu bari nañ làmb doxul yow làmb dox na wala làmb doxul bu doxoon heure bii parce que dafa am catégorie na si kaw ak ñu leen topp xam nga ay catégorie la. boo nee les VIP boo si jógee ñoom ñoom ñoom ama neex la ñoom Modou Anta ñoom Sa Thiès ñoom Garga Mbossé nga ñëw ba ci suuf ah, mais làmb dafa bëri ñoo xam ne ñu ngi suuf ñoo xam ne déggatoo leen te di ay mbër kaamil lañu ñu ngi ci làmb ji mais buñ ne ku ci taxaw ne ñu ngi dox da nga ñeme yàlla kon làmb doxal bu doxoon man am am naa franchise bu toll ni dama naan la làmb ngi dox mais y a des problèmes te problème yi ñi fi nekk nii amatuñ si solution parce que dem nañ ba sës si mur bi léegi li ñu mën def mooy nañu bàyyi jéem a xool ñeneen ñu doxal la mais ñu fi nekk mënatuñu mënatuñu dem parce que mënuma concevoir yow sax en tant que CNG mais bu promoteur yi tëggul mais demal nga demal demal ci état bi c'est des démembrements de l'état nga dem ci état bi mais nga nga jox nga laaj leen ñu jox la ay fonds nga tëgg ay lamb mais ñoom soxlawuñu dem ci état ñoom daal nañ toog di xaar mbër yi rek mbër juum na ñu dagg sa xaalis promo euh, licence promoteur nañ jënd licence mbër 10 mille jënd ñoom loolu actuellement lool fa seen xam-xam yem làmb mais amatuñu xam-xamu làmb c'est mais tey am na ñoo xam ne bu ñu ko yoroon tey ils vont essayer de trouver des moyens dem voir le président ñaan audience jaare ko par le ministre dem toog a président ne ko y a des problèmes dañ bëgg nga financer mais mais président il va les donner des moyens parce que mënul defal stade bu tol nii trente deux mille trente deux milliards te amul accompagnement da defal structure bu mel ne par mais da ngay ànd ak lu da nga boole dara d' autant plus que tey jii promoteurs yi lañ fay fay déjà dafa bëri te dañ leen wax dañ leen may stade bi léegi fu ñu tëgg bari yi la ñuy tëgg léegi. parce que am y a problème parce que ñi fi nekk mënatuñu gérer ku ci nekk ñoom boo xëy sa liggéey ngay def ah. ñoom ñi ne seen jëm ku ci xëy sa liggéey ngay dem def kon ñooñu ñu setal nañu làmb te nag dina la wax dal ëllëg équipe yi ñëw noo ñu gën a lu metti la ñu daj pour ñu redresser waat làmb parce que ni ma gis ni dañu nekk pour pour rey làmb ji ba mu dee nga xam ne léegi bu ñu demee keneen ki yow dañu naan ah, waaye gis nga ko bi mu fi nekkee te li gën garaaw bu njëkk bëre da bëre bu njëkk da ngay bëre am problème jot sa xaalis moom bi mu ñëwee réglé na loolu quelque temps mais li am léegi moo gën a garaaw léegi da ngay fay pour gis mbër boo xam ne da ngay da lay fay 100000 jox la deux blocs boo ne bu si ne loolu moo gën a loolu moo am ci làmb ji y ñoo rey ñoom ñoo rey làmb ji que mënatuñu dem nit boo ngay bàyyi jox ñeneen comme se dit la seen marche boobu nañ jàpp ne ñëpp dañu leen soutenir. oui parce que ñoom bu arbitre bu ñu jógee mbëri jóg ñeneen jóg mais dañ ils vont quitter. ñëppay jóg dañuy on soutenir man maa la wax lii. Euh. on va les soutenir on parce que li ñu leen dal injustice la munoo jël ñoo xam ne dañuy liggéey nga leen di fay mbër 130 millions di fay arbitre 10 000 bu mu génnee ci paasam aller retour ak ak añam mu wax nga ne ko pour nga wax daal di ko 5 ans. quand même qu'on se dise la on est dans quel pays Sénégal il faut que ñuy waxante dëgg ñemee dëgg bu ñu ko deful dëkk bi du dem y des problèmes. ñun nag mbër ñoo ci gën a deemun jël benn koo xam ne un vieillard de sant dix ans bañ a du bàyyi ku wax mu menacé la loolu dafa war a jeex Sénégal. comme ça ëpp na ko. <laughs> Père Kairé waa wasaare lamb waa wasaare TV. Basirou mii nee na kontaan nañ ci yow euh, lan ngay tàggatoo tàggoo bu tàqali ko. li ñuy tàggoo daal mooy ko ñun daal ubbil nañ leen seen porte foo leen ko sentir rek parce que dañu bokk ci làmb war a wax. ñun duñu wax ci football duñu wax ci handball duñu fi wax ci leneen làmb rek la wax parce que dañ see suñu dara def see tuuru suñu ay bëñ dañ ci kon loolu bu ñu ci waree wax suñu suñu ay njaboot dugg ci kon bu ñu si waree wax rek dañ ci war a wax te li ñuy wax yëpp pour defar moo tax ñu wax mais tey jii li ñu wax euh, defar googu nag il faut nit ñi di ñu déglu mais mais Boy Kayre yàgg na wax ñu naan non kii dafa contre CNG bi dafa contre Alioune Sarr tey li ma doon wax mi ngi nii waxuma woon pour classe Alioune Sarr wala pour wax na mais dama bàyyi xel loolu mi ngi nii tey mi ngi nii voilà la voilà les conséquences te actuellement day gën a pire parce que mënatul dem c'est fini waaw di gërëm ñëpp di sant nag di wax ne daal vraiment comme ni ma ko wax daal ubbil naa leen porte salaamaaleykum wa rahmatullah waaw waaw kon ni ma koy waxee rek nee naa leen dañuy tàggoo tàggoo bu dul tàqalikoo mais bala maa tàggoo damay béggee ñi nga xam te ni ñoom ñoo ñuy suivre ah, les internautes ñi ngi leen di béggee bu a baax naan kontaan nañ ci yéen gis nañ accueil bi gis nañ li ngeen di sonnee suñun mais li may wax rek dañ naan doole jël ndox mais ñun yéenay suñu doole yéenay roi yéenay rey ba tax na kontaan nañ ci yéen bu baax a baax mais damay béggee waat ñi nga te ñoom ñooy waa ngoonalu làmb ku ci mel ne Assane bu armé maa ngi lay béggee bu baax a baax naan la dañ see jàpp bu baax a baax naan la nag fi nga teg sa tànk foofu la damay jël may jël nuyoo bi rek jox la ko nga tasaare ko ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp Basiirou kon ni ma ko waxee rek l'infatigable maa ngi lay bëggee wat bu baax a baax naan la wax dëgg yàlla yow su ma la amuloon dama lay créer Fatima borom wasaare làmb nii lañ koy defee ñii dañ leen di seeti kon ni ma ko waxee woon rek dañoo seeti woon Sa Thiès seeti ki nga xamante ne moom mooy si toor dañu ñëw toog ki nga xamante ne moom mooy suñu papa noonu lañ koy defee rek dañuy seeti ñi nga xamante ni ñoom ñoo war a wax te dañuy wax Père Kairé li mu wax wax dëgg yàlla yéen internet yéen yéen ay atte ba léegi ni ngeen bëgg noonu rek la ñuy def ko leen choisir dañ koy seeti ba tax na kontaan naa ci yéen bu wér a wér nu ma ko waxee rek wasaare kese rek wasaare làmb kese doy foo daal Basir kontaan naa ci yow bégewaat ñëpp